xamante si tey ku leen xamut dégg na leen te bëriwul sax ñu leen xamut mu di euh, jumeau Afia sama gars yi maa ngi leen di jaar ci kan laa war a njëkkee. foo baax na c'est la famille. waaw mi ngi noonu waaw. alors tey ñu ñëw fekk leen ci concert u kii di lan moo waral tey ngeen ñëw tànn jury pour dooleel ko. waaw salaamaaleykum damay nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di wax ni VJ la. sunu xarit la ba pare nit ku ñàkk ki ñaan la xam nga lu ma la ñu bokk dëkk Pikine comprendre nga tey ñu ñëw pour dooleel ko pour wane ni ko ne Pikine lañ dëkk moom i Pikine la dëkk looloo waral tey sunu teewaay mu jox ñu cër loolu nag ñu ñëw mu yëkkati bant jox ñu nañu jox sama simo jox ma benn barke Serigne Touba waaw waaw waaw mais asalaamaaleykum damay bëgg rek waaw di nuyu ku ñu gis ba bëgg ñu ni ñu civilisé si ay tànkam nañ dox ndax moom kuy ànd ak moom rek da ngay bëgg sa bopp gëm sa bopp civilisé loolu kese la. style bi fan lay jóge. style bi style bi style bi maanaam man la Zimo la. waaw ñooy ñëwal suñu bopp ñooy solo suñu bopp barke Serigne Touba. dama jàppoon bëri naa ci morom ñoo xam ne dañuy jàpp ne. da ngeen di jënd mais yéen a ko. kenn jaay ñoo jaay yéen wax leen. lii kon jar na émission parce que lii ñu ko xam bëriwul. yàlla yow ñun dinañ la nangu lool ñëwal incha allah c'est la famille. jaajëf ma fer. Qatar TV maa xaasa xaasa xëysal baalu alhamdulilah. mais concert bégal sa xol kay loolu kay kenn moomu ko dañuy tere ku bégal xolam. waaw mais. <laughs> waaw nit ki booy def dara nga am ci talent am ci détermination gëm sa li rek nga mën am offert boy bi dafa ñëw démarqué wu def lu muy def xalé yi fil ko quoi té nit ñi ma bu la xalé yi bëgg rek je pense que yaa ci lenn tu vois donc il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire je pense que sénégalais war nañ ko jappalé mu dem mu dem fu soré soré soré quoi tu vois ñu gis ne jeunes yu mais saa télé bi ñu ngi gën a seetaan mooy téléphone au fait télé bi nit ñu gën a seetaan mooy téléphone que ça soit muy TikTok Instagram ak yeneen réseaux sociaux yi tu donc yow yaa xam lan nga ci def yaa xam yow lan nga ci bëgg après nga def moom il a su être en fait visi lu muy def ni man ci américains yi laa ko gis cest wu dire ñoom soxlawuñ yi ñoo leen soxla instant moom soxlawul télé télé yoo ko soxla donc à travers loolu mu def télé yi soxla ko moom il compris que comme am na Iis am na lu mu waxoon bëgguma ci jaaraat c'est-à-dire bu leen nit ñi gisul da seer am na loo xamante ni moom la ñu gën a seeraan ci àdduna bi di tëru fentele duudu kaay kaay rek kii moo demoon Qatar moo demoon Qatar dafa quatre-vingt-dix minutes ñëw si waaw salaamaaleykum sama gars yi li mu wax la lu am xam ngeen kii mooy kan est-ce kii moo wax ci benn film ba film bi jeex feeñul xam nga ni nijaayam man kenn lay wër nijaayam est-ce que duful moom est-ce moom yow mais yow 90 bi ni man yàgguma ko yàquma ba waaye feeñ naa ñëpp gis nañ dem naa mais moom film bi kenn xamul mu nekk non asalaamaaleykum maaleykum salaam laa lay tegal nii ba ma ñëwee fierté bi ma am moo garaaw macha allah xale bu ndaw 18 ans fii bees si bi rajo sans lii mooy wax ni bi dañ leen war a delloo xel bàyyi leen xel parce que jeunesse bi dañoo am doole ku si nekk fii da am nit yu bëri yu ngay àndal kon gars yi ñu war a bàyyiwaat xel xam nga amna na xam nañ ko may waxé dañ ñu bay dañ bay xel jeunesse bi waaw dellu bay tuuru macha allah suñu rax bi ñëw. fala no li nga koy duma wax. man sama at bu bes bi inshallah nañ xal série na bu wax dat bi wax dat bi sunu événement bu way bu wax dat bi bàyyi wuu. gars leen xay no bu wax bobu tamit no bu wax bobu bu wax bobu bu wax bobu dencal dencal dencal dencal dencal nañ dem dencal. waaw mën nga waxaat tuuti soo ma yóbbaale. tey leen si tey benn télé liggéey bi di kawe ba jeunes yi yëpp nekk fi xàmmee leen xam seen tur ràññee leen. waaw tey mënuñu lu dul di kontaan mën nañ ne lépp lépp suñu waa ji la fii si mënuñu lu dul di ko ñaanal di ko ñaanal mu jëm kanam ndax lii nii mayu yàlla la. te xale bu ndaw la il n'a que 18 ans def lii nii nga xam ne ni ay mag ñu fi def ko ay toog ay année mënuñu def li nga nii mënuñu lu dul di ko ñaanal waaw mu jëm si kaw si kanam xam ni lii début bi kase la defagul dara. est-ce que est-ce que Bibana il s'y bi mu am tey parce que euh, euh, euh, ñu bëri peut-être dañ lay soog a découvrir TikTok aussi wala réseaux sociaux yi bokk ci li nga xamante jot na leen gën a dooleel. ana euh, ce que doon nga waaw waaw mën naa ne bett na ma bett na ma trop parce que parce que lii moo ñaagoon nekk rêve bi mais tey ji comme que na mënuñu lu dul di sant yàlla parce que bi may débuté taroon na trop musuma yaakaar ne dina demee nii mais tey ji sant yàlla rek xam ne na nag affaire yi gën a yokk joob ba mu jëm si karam lan mooy secret bi. secret rek liggéey rek liggéey rek C'est grâce à vous. bu mel ay Canal Plus un peu partout dans le wax waxam c'est grâce à vous kon tàccu leen seen bopp ma xool yes. gars yi benn affaire lañ leen lumière bu mu ne fay na place yëpp tàkk place yëpp tàkk que xam ngeen fi dalul ñu leen di wax kan mooy waaj a ñëw kan ngeen bëgg ma ni kan ngeen bëgg ay kan ngeen bëgg yéen ku leen bëgg xësa ñan leen bëgg monsieur dame monsieur dame ne téléphonez pas s'il vous plaît on doit montrer cette vidéo au monde entier d'accord képp ku nekk à l'étranger war nga gis li xew fii tey c'est du jamais vu dans l'histoire. Il il le foofu c'est bon. Messieurs, dames, nous sommes ici à Dakar, au Sénégal. C'est un garçon, il vient d'avoir ses 18 ans. Il a commencé à peine, il n'y a même pas deux ans. Mais Messieurs, ce qui se passe actuellement ici sur l'esplanade du Grand Théâtre National de Dakar, c'est du jamais vu. L'histoire retiendra. Mesdames, Messieurs, il est passé de l'autre côté, pour là. Il a foofu nga xamante mon Magic Land à trois reprises messieurs dames il a commencé à véritablement nous donner du plaisir fan unique, Canal Olympia et ce soir regardez ce qui se passe actuellement sur l'esplanade du Grand international. de Dakar voici le public en regardez-moi ça et eh bien messieurs messieurs il a tapé des clamérises bien partout au Sénégal. Et nous voici ce soir. L'histoire retiendra à 10, 9, 8,